donc je suis toujours dans la même logique transport dafa bokk ci mbirum dund bu cher tey ñu ngi importer ay oto ñu ne la tënkoon nañu importation oto yi ci ci ay at léegi dañuy soppi carte euh, grise oto ba avant muy ñëw ba bu waroon a nekk oto bu ñu nee ni vingt ans la ñu jox la oto ne la dix ans la am ca bitim réew te daw na fa cinquante ans sax boobu moytul muy indi yeneen jafe-jafe donc loolu yëpp ci dundu gi la bokk te loo xam ne nit ñi dañ koy jànkonteel moo am ay ay ay conséquences mais juste ci aspect bi sëñ Bamba wax sànq euh, les plus riche au Sénégal baykat bi la a doon ci yenn réew baykat yi ñoo doon yëkkati seen seen alal di jàppale état tey état mooy ñëw naan la ameel nañ ñu bor Euh, vingt milliards quarante milliards cinquante milliards ameel ko baykat yi producteurs yi pour ñoo ñu dem joxe alors que producteur boobu baykat bi moo waroon nekk ka euh, ka ñuy fulaal ndax moom moo yore koppar mooy dundalaate mooy dund askan wi la mu yore moom moo war a dem ci askan wi la mu yore ca la ñuy teq jàppale état ba état mën a doxal yenn ci ay politique Mhm. mais mooy dundal lépp. baykat bi. baykat bi moo yore lépp. Mhm. waaye baykat bi da koy jox li mu soxla. Mhm. pour mu mën a yore lépp. ndox. ci yu baax. ci la bokk. jiw ju baax. ak yoo xamee ni dina tax ba ay machine baykat bi mën a def comme France France bu baykat yi taxawee def seen seen délégation taxaw jël seen i tracteur baare tali bi. Euh, France yëg na ko de même si wàllu koom. yëg nañ ko yeneen i réew def nañ ko euh, seen réew yëg nañ ko bu baax a baax parce que baykat yi ñoom ñoo leen yore mais malheureusement dans nos pays defuñu ko te pourtant bu ñu xoolee histoire. Mhm. Mamadou Dia moo nekkoon xeexam. Mamadou Dia la mu bëggoon mooy paysan bi doon ki nekk ci kaw au sommet de l'échelle ci fànn wu ne waaye am na ñu mu arrangé wul woon booba temps yenn ci sëriñ si arrangé wu leen woon. yenn ci ay fonctionnaire tubaab yi arrangé wu leen woon parce que da doon am benn indépendance boo xamee ni réew mi da ngay am te du leen noon arrangé moo tax ñu xeex Mamadou Dia waaye projet boobu mu amoon ak euh, euh, gisin bu mu yoroon buñ ko toppoon kon heure bi waxtuñu ay waxu autosuffisance ak yooyu kon heure bi Sénégal buñ ko dépassé bañ dépassé loolu yàgg na kon ci pays développé lañuy bokk mais ah mu ngi noonu daal. mais par rapport ak vie chère bi ñuy ke Birahim laaj laaj bi samp mooy dañu def dañu gis le nouveau régime dañu. Euh,